déjeuner na. ah ñu ngi leen di sant bu baax leen delloo ziar. tey ñu fekk la sa kër Jannatul Mahwa ngay dundal bés bi comme ni ko borom bëggee ak say soppi yi fi daje. waaw waaw ñu sant yàlla bu baax ci lim ñu may ñu fekkewaat ko di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko ay déwéni déwén déwén ñëpp teewee kenn bañ a wuute di santaat Serigne Touba ci lim ñu dimbalee ñu tàbbi ci lii nga xamante ni mooy. sant yàlla sunu borom ndax màggal bésu sant yàlla la dañ ko tuddee màggal waaye bésu sant yàlla la te yàlla si boppam moom moo ko digle moom moo bëgg ñu koy sant Sëriñ Tubaa ñu ànd ak moom mu digal ñu ko donc loolu dañ ci dañ ci santaat yàlla boole bi mu ñu booleek moom loolu la li koy indi rek xam naa mooy am am yàqin am taw tawféexu aussi xam ni ndimbal ak lor ak euh, ndimbal ak lor ak njëriñ dafa ne ci yàlla sunu borom xam xam bu wér ni àdduna yëpp bu ñu la bëggee dimbali te yàlla dimbali lu doo am dimbal àdduna sëpp bu ñu la bëggee lor te yàlla lor la doo am doo loru loolu nag boo ko xamee mu ne ci sa xol loolu nag ñëpp ñëpp xam nañ ko mais ñëpp gëmuñu ko ñun ne dañoo am tawféexu Sëriñ Tuubaa dimbali ñu ñuy dund loolu suñu xol moo tax duñu duñu duñu du ne duñu duñu jàmbat duñ ko kii waaye waaye tamit waaw loolu yëpp mënta ñàkk mais xam daal bi ñu xam ni sunu lépp daa ne ci sunu borom ci loxo sunu borom ñu xam ko ba pare di ko dund loolu daf ñu may fit daf ñu may xel mu dal lu nu bëgg a def danañ ko def feek tooñu ñu kenn. looy loyauté lu muy signifier ci la. ci. loyauté lu muy signifier ci la Diop la loyauté. loyauté parce que ñu ci bari jëwee nañ la. waaw loyauté nag moom xam nga dafa di dafa di qualité boo xamante ni maanaam. ku ko ku ko ku ko ku ko làmboowul day mel ni jaxasoog moom mënta ne jaru ko te loolu c'est une vertu boo xam ne c'est c'est primordial c'est essentiel j'allais dire dans une collaboration ou bien dans une relation tout simplement loolu lu lu lu am solo la loyauté dafa am solo am solo. sa digganteeg Serigne Touba. waaw sama digganteeg Serigne Touba moom kooku bu ma koy wax sama digganteeg Serigne Touba loolu. dama ko bëgg rek waaw bëgg rek waaw àgg ci cofeel lool waaw Sëriñ Tuubaa moom buñ ci dëree bëgg wax sunu digganteeg moom duñu xam fuñ koy tàmbalee duñu xam fuñ koy yemale waaye diggante bi moom daal li ko laal mooy cofeel la. ban bés nga mën a fàttaliku ni daw nga ba wéeru ci moom këkk ba bés boobu doo ko fàttali. moom mënuma la wax benn bis ndax man ci laa ne chaque jour <laughs> amul bés lu may dund la waaw Sëriñ tubaa daf ñu dafa am maanaam dafa am yoo xamante ni bëgg ko daf ñu cee yóbbu ci lislaam man mii di wax yow du ma sëriñ moo neexee sax ma ne samay ibaadaat bariwul waaye am naa loo xamante ni man leer na ma ne nit jaamu na yàlla ba sonn am ko waaye loolu bëgg Sëriñ Tuubaa ma ko may waaw mooy mooy mooy tawxiid waaw wéetal yàlla ba xam ni lépp sa lépp moo ko yor kenn yoru ko loolu man lu lu wóor la ci man boo déggee ñu naan saa yi dafa am fit ak dafa du fit fit dañ koy teg fenn fit dafa am foo koy teg da nga am doole wala nga am xaalis wala loo gëm mais tawxiid dëgg dëgg bàyyi ak bopp yàlla loolu moom am naa ko ci Sëriñ Tuubaa te duma ko gam gaam lee lu wóor laa ko am waaw loolu am naa ko ci Sëriñ Tuubaa su ma noonu laaj laaj ju mujj Lat Diop lu la Sëriñ Tuubaa defal li ma suñ tubaa defal li <laughs> ma suñ tubaa defal man xam nga maanaam da ngay du ma ko du ma ci mën a sori parce que am na loo xamante ni boo boo ko mënul wax rek day day gën nga noppi te am na loo xam ne bu ko nit déggee yaa ko tooñ xaw ma da yaa ngi may déggam den waaw am na loo xam ne boo ko mënul wax ba mu mat beeboo nga noppi te am na mbir boo ko waxee bu ko ku ko dégg yaa ko tooñ man boo ma waxee lu ma Serigne Touba defal loolu laay tontu. sant nga sëriñ waaw loolu moom kenn waxatu ko sant nañ Serigne Touba sama doom ji sëriñ tubaa laa ko tuddee Cheikh Amadou baama kiy seedeel la ci sama bëgg Serigne Touba waaw sant nañ ko lool lool lool lool ndax li jafe ci jullit am nañ ko defal nañu ko waaw. waaw mooy mooy bëgg yàlla gëm yàlla doyloo yàlla loolu moom am nañ ko ci sëriñ tubaa jërëjëf jërëjëf <laughs>